maa ngi sant yàlla bu baax di nuyu Sénégalais yëpp di ci gisal suñu kilifa diine yi nga xamante ne ñoom la yàlla dénk njaboot gi ñu di ko sàmm di dénk leen réew mi ñu di ko sàmm maa ngi leen di nuyu suma ma ci ñoom maa ngi nuyu kilifa aada yi di wax ne Sénégal fi mu toll tey dootuñu wax diw ci parti sàngam la bokk wala diw ci coalition sàngam la bokk dañuy wax ne Sénégal bi nga xamante ne dafa fiir pour que Sénégal ne ci jàmm moom la wax. te loolu jot naa ne Sénégal yëpp ñoo ci war a ànd nga tax situation yi ñu toll ndax pression yu bëri nañ ci président Macky Sall te dara waralu ko lu may ñi ñi nga xamante ne lobby yi nga xam ne dañoo ne ci àdduna bi ñànk Sénégal tey bëgg a jël Sénégal waxuma lekk ko waaye jukko yi nga xamante ne ñun suñu maam yi ñoo doon taxoon ñu doon xeex di sonn pour que buñ ci kii ñu fexe ba jukko yooyu law Sénégal ñu ñu ñu ñu ñu boom boom suñu pétrole bi boomaa lañu te loolu kenn mënuñu ci génn lu may gëm yàlla gëm yàlla nag ñi ko ñi ko ñi ko ñi ko yonent bi dénk tey ci kaw suuf mooy suñu sëriñ si moo tax ki may njëkk interpelle mooy mooy mooy mooy Cheikh Mahi Ibrahima Niass tey jii nii ci toolu xare lañ nekk fexe ba Sénégal ne ci jàmm ñi def ay élection mu jàll ci jàmm euh, euh, ki war a falu falu loolu sa responsabilité maa ngi maa ngi ci interpellé ni ma la ci interpellé noonu laay interpellé nag sa sa nawle yëpp ci Sénégal dale ko ci mu Mountakha ba sañ sëñ bay si ci Tiwaawoon ak laaye nag ñëpp képp koo xam ne yaa ngi bu bëgg diine yaa ngi amee daara yaa ngi amee euh, euh, euh, jàkka yaa ngi jàng alxuraan yaa ngi wirdu yaa ngi julli soo xë soo xëyee soo nokki sax ñaan la Sénégal yàlla def fi jàmm pression yi bëri